li Cheikh El Hadj waxoon Alaaji Rawaan ngoom ba mu ko ne sëriñ bi tàyyi nañu ci saaga yi may nu ku saagaati tariqa ñu rey la mu ni ko ëpp naa def ku saagaati tariqa jàngal leen fatiha tariqa waaw moo gën ndax nit ki nekk fii xolam di tàng mu di gën a tàng rek tariqa di gën a jëm kaw moo ëpp solo moo ëpp solo